da ngeen jëfati mbokk yi ci seen àndina ak la chaîne des leaders Senbuzz TV xam ngeen ni la doon king de la lutte sénégalaise daf fi jóge muy suñu papa Gaston Mbengue ñu ñaan yàlla mu teralee ko aljanna évidemment mënul ñàkk kon ñu dalal ñi nga xamee ni xam nañ leen ci lamb ñu rendre ko hommage ki ñu fas yéene am jotaay nag vraiment xam nañ ko ci lamb ndax digganteem ak ki nga xamee ni mooy Modou Lo tudd Modou aussi te tudduñu ko yàlla moo def loolu euh, euh, a baax jàpp aussi li ñu bokk waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wax inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun euh, congaan maa ngi lay fay <laughs> di nuyu mbokk internet yëpp mhm. di wax na ay moom xam du ñu def lu dul am naqar ak mhm. mais bon muy sunu père Gaston donc démb bi ñu jógee ci làmb ji lañuy dégg nouvelle bi mhm. mu nekk nouvelle bu métti mais bon comme li ñuy wax rek kullu nafsin saa yi xatin kullu man alayha faid xam te ku dul juum moom lu mu def noonu la. waa la donc lu ñu def lu dul ñaanal ay njabootam famem mhm. sunu borom may leen xolu muñ. te ñu ñaanal ko fi mu jëm gënal ko fi mu jógee. Mhm. ñu koy masaw njabootam yëpp rawatina makan ak axlu làmb. Mhm. di ko masaw Sénégal àdduna yëpp Gaston moom. Euh, Gaston du même bu dul Gaston Sénégal Sénégal ñoo ci gën a jëriñu. bien sûr bien ñoo ci gën a jëriñu parce tey. gis nañu li mu def ci làmb <clears throat> gis nañu li mu fi def. Mhm. tey bu ñuy wax fi mbari yu bëri bu loon Gaston amaana du demee noonu. tout à fait. waaye donc man daal du ma def loolu ñaanal ko. Mhm. ñaanal ko bu baax a baax sunu borom mhm. xaaree ko àjjana. macha allah. te woyofal suuf ci kawam. amiin yaa rabbi yokku njabootam xolu muñ. amiin yaa rabbi boo doon def benn hommage ci lu la gën a marqué ci moom évidemment ku liggéey ak Modou Lo liggéey na ak yow lan moo la gën a mën a moo la gën a marqué vraiment ci personnalité Gaston Mbengue. waaw man nag euh, bon naa ne. Mhm. amuma chance su ñu am benn affinité bi. Mhm. mais xamante nañ fu ñu gisante xam nga dina mën a fiis affaire yooyu tooñ ma. tooñante xam nga yow da affaire yooyu quoi. bon mais amuñu sens liggéey comme par exemple ni ma ko amee ay Ligue Nicolas ñeneen ak ñeneen ak mhm. ñeneen mhm. mais bon xam naa ne daal nit ku nit ku def nii la quoi. nit ku dëggu la moom la ko ñu bari di seedeel ah. daf ma daan wax loolu quoi ndax ma yow moom xam sama mhm. fils nga ba sa bara yow. li <laughs> ma wax genre wax yooyu. ndeysaan mu nekk bu baax a baax macha allah moom daal. jàmbaar daal dem na. Mhm. Sénégal ñoo ñàkk. Mhm. waaye bien vrai que njabootam ñàkk nañ mais Sénégal tamit ñoo gën a ñàkk. macha allah damay wax ni doy na mbégte rek fa mu tëdd tey ñu ne Modou Lo tey bu demee bay teral ay waajuram di fayee ko ay millions Sénégal yëpp xam ko ba mu liggéey li mu liggéey ci làmb c' est grâce à Gaston Mbengue parce que moom mooy wax ni moo ko njëkk a fay grand combat mu bëree ko moog les deux loolu tey bay satisfaction nga ciy am tey. Mhm. a parce que waxuma la rek mais dama ne tey peut-être ñooñu sax ñoom ñoo nekk mbër yi nga xamante ne dañ leen xam ba léegi. Mhm. mais bëri na ay mbër yoo xamante ne amaana ñi bëreetuñ amaana ñi nekkuñu fi xam nga te moom moom moom moom dafa participer ci ñoom bu baax quoi. Mhm. xam donc mooy li ma la wax rek Sénégal ñoo perte. Mhm. waaye. donc euh, bon te perte ñu sax ah. justement waaw perte ñu xam très bien. Mm-hmm. Mm-hmm. suñu lu mu def nekk am na lu tax. Mm-hmm. dèjà makan a ngi xam nga ñoom ñoo perte kon. ñoom makan ñoom ñoo gën a perte quoi. mënul ñàkk aussi ma may la occasion nga yëkkati ay kaddu yu encouragement kaddu yu jaal jëmale ko ci doomam bi makan sa frère. moom mi nga xam ne moo jël la ngay ci gannaawam. macha allah waaw makan moom xam nga. comme moom mi ngi woon ci chemin bi mi ngi woon ci yoon bi donc du ma ko wax lu dul ko waaw yokk parce que moom jàmbaar la. gars gis nañ li muy def boobu ba léegi xam nga mi ngi koy teg ci yoon paa bi tàggat na ko ba nga xamante ne fi ñu toll ni moom liñ naan ku jur doom deewoo <laughs> paa tàggat na ko ba nga xamante ne macha allah fi ñu ni moom waaw mën na taxaw taxawaay paa bi quoi. très donc dañ koy encouragé di ko wax mu gën a jàpp milieu làmb bi nag xaw na kii mais xama justement pour nga nekk ci moom faaw nga. Hmm. faaw nga dëgër comme papa ma wane na yoon bi way <laughs> très bien. <laughs> wala des fois ñu gàjji la nga gàjjiwaatee. Hmm. xam nga. Hmm. des fois ñu gàjji nga bàyyi mu sedd mais milieu làmb moom des fois xam nga. faaw nga mel ni mën naa ne papaam looloo ko ci gënoon génnee sax. très bien waay occasion la aussi ni ki démb tey sa frère moo doon bëree mooy ki nga xamee ni mooy franc euh, victoire franc démb gis naa ni bég nga ci de façon général waa parcelle bég nañ ci euh, lan ngay wax ci victoire bi ak aussi palmarès bi nga xam ne jot na ko am. waaw avant loolu tamit xam nga. Mhm. <laughs> di nuyu suma seriñ bu baax a baax. waaye comme ci dëj bi la ñu duggee. dëgg la mhm. di ko nuyu bu baax maam Thierno. ak njabootam yëpp di ko ñaanal jàmm ak wér. ak amiin yaa rabbi suñu borom bàyyi ko fi kàttanal ko. ba ci kanam a kanam kanam. ak këru kilifa diine yëpp. waaw contentement rek. démb moom moom faal <laughs> démb moom dañoo kontaan quoi kontaan nañ nii nii kontaan nañ mais xam nga waroon na gën a mën a neex quoi. Hmm. parce que xam am nañ ci ay ñoo xamante ne xam dañu ñàkk ci mel ni Thiatou Piol xam hmm. ak Franc ak Talfa. Mhm, ak Talfa waay. bi moom xam nga moom dem moom boobu moom dafa ma métti quoi franchement. métti mhm, mhm. na ma trop. mais bon comme li ñuy wax rek sport la quoi. waay ki ko daan war na daan ku dul Talfa. parce que Youssou Ndour c'est un très grand champion xam waaye bien vrai que affaire yi xawoon na kii ci moom. mais bon champion bu mag la. bu ko daanee war na koo daan day dem defarwaat rek après mu focus si li nekk ci kanam quoi. témoignage bi Franc def après combat bi ci Modou ci assistance bi nga xamee ni jox na ko koo ci jàpp jàppale bi mu ko jàppale euh, lan moo may loolu Modou vraiment parce que gis nañu ni de façon générale mbaru la lan moo may ah, parce que gis nga moom nit à chaque fois boo jiitee mhm. da fexee def loo xamante après ñi nekk sa ginnaaw dinañ mën a roy ci yow quoi waaw mhm. ah, te comme moom yàlla dafa dogal mu jiite te xam nga bërëb yëpp am na ñu fa jiite mhm. te amaana ñu ci bëri ñi jiite nanguluñ leen waaw ah, donc moom bu ñëwee jiite booy lu mu bëgg booy nekk ci. xam nga hmm. lu mu taxaw booy ñëw gën ko koo bëgg. Hmm. donc moom il faut mu def nii quoi bu booy amee seen bis mu rendre leen la ne quoi. Hmm. taxawu leen xam nga ba booy yëg seen bopp quoi sinon moins de gestes rek dañuy frustré wu quoi dañuy jàpp ne xam nga. xam nga Sénégal moom des fois ànd ak ku siiw wala ku ku am xaalis dafay xaw a métti vite fait buñ la gisee tey nga am muudu am bis par exemple bu ak gars yi ni ciy sonnee xam nga bàyyi seen kër ñëw regroupement yow nga am bis gisuñu loolu say famille ñoo lay njëkk a wax bàyyil ki ngay topp xam nga kii amul lañ njëriñ yaa ko mm-hmm. topp la mm-hmm. xam nga mm-hmm. ñàkk nga fayda bàyyil ki nga topp te amaana yow bi ngay ànd ak moom xaaruloo sax retour boobu peut-être ñoom ñoo gis loolu xam nga moo tax ànd boobu day boo jiitee day xaw a métti nii mu def nii rek noonu la war a def te Franc moom xam nga lu ko Modou defal rek jar na ko quoi franchement d'accord waaye lu ko Modou mënta defal moom mënu ko fay. mais mais mu mel ni signe de reconnaissance la parce que aussi man damay dugg fu ne mais souvent damay dégg ñu ne dafa am lu bari lu ñuy tooñee mbër yi mais tooñee wuñ ko Modou dafay jàppale bu baax a baax dafay bàyyi xel xale yi nekk ci gannaawam xale yi muy entraîné ndoor ak yu demee noonu Papis loolu lan lañ ci war a mën a jàngee vraiment ci façon de faire bi nga xam moom la Modou di def di bàyyi xel tout temps plein yi nga xam ñoo nekk ci gannaawam. chaque jour da ngay def loo xamante ne kenn du la ŋaañi bien vrai que munoo fii Sénégal munoo fi ne sa te kenn la ŋaañi. Mhm. loo def dina am ñu neex am ñu neexul xam nga noonu la dëkk bi di doxee. Mhm. mais yow defal li nga war a def. waaw ah, li naan bul xaar looy def def ko lu ci fekk mooy loolu. Mhm. war a def def ko. loolu la war a def moom moo jiite tey bu jiitewul woon bu keneen jiite woon bu deful loolu gars yi parce que nekkul moo fi mujjee jiite ah. absolument am na fi nekkoon jiite. xam nga. te après gars yi gis nañu retour yi. xam nga donc moom warul mujjee puso mu réer ci loxoom. Mhm. waaye boo jiitee te ñi nga jiite xaaj bi yëpp magoo leen yàlla moo dogal nga jiite ñoom ñu nangul la ko donc loolu yow munoo def lu dul mënoo def lu dul remplir rek. justement waaw d'accord man loolu rek laa gisee di wax gaa yëpp tamit xam nga ci yeneen gox yi ma leen di souhaiter loolu di leen ko ñaanal. Mhm. waaye. très bien pour ñu nekk benn quoi parce que booloo mooy doole. absolument très bien alors Papis mënuma bañ a dugg évidemment ci li nga xam ne mooy actualité vraiment position politique bi Modou jëloon dafa mel ni xaw na métti en quelque sorte ci ay critiques mm-hmm. gis nañu ay 72 heures Modou Lo vraiment euh, polémique wala souvent yenn accusation yu nekk ñu accusé ko nan nga dundee loolu mais aussi. ban lecture nga am parcours bi nga xamee ne def na ko ci position bi mu jëloon. waaw xam nga Sénégal moom mooy li ñuy wax rek. Mm-hmm. des fois dafay naqaree waxee quoi des fois dafay naqaree waxee ba tax na léegi yow booy booy wax sax da ngay tiit man gisoo cobaan hmm. wallahi man gis nga man pour ma def interview sax problème dëgg la xam naa ci dara na <laughs> bu doon man ak man kese sama sago nii absolument ko mës a def tout à fait xam nga mais ah. comme yéen ci ngeen nekk dañ leen koy may absolument oui man dama la sonal sax quand même na yàlla non garaawul mais xam nga tey Sénégal wax fi dafa metti mais bu la leeree ne yow tey boo waxee xam nga hmm. après da nga am ay retour yoo xamante yu négatif xam nga yow tu préfères nga noppi bañ a wax quoi parce que fii booy wax amaana ñaar moom am hmm. wax pour nit ñi wala nga wax pour sa bopp léegi da ngay wax pour nit ñi sax ñu dal sa kaw nga wax pour sa bopp ñu wax la lu gën a ñaaw xam nga moo tax man damay préférer noppi. d'accord bon Modou tey li mu wax noonu gisewu ma ko dara lu war a tax ñu naan dañ koy defal ay soixante-douze heures gisuma ko comme ni ma waxee ne Birame Souleye moomu. boobu hmm. euh, mooy ministre bi. Hmm. comme man ni ma waxee ne li mu wax. gis-gisam la wax esal ma la te ku nekk am nga droit wax li nga xamante ne moo ne ci yow. bien vrai hmm. nañu ne. waru ci wax parce que géré wul fonction boobu na dem wax fi mu géré ok loolu mën nañ ko wax mais li mu wax man gisuma ci lu garaaw fii ku mu neex nga ne buñ la tuddee. Mhm. xam nga mhm. peut-être tey version bi mu waxee ak fi gars yi waxee. <laughs> fi gars yi déggee du benn. jàpp ni erreur de communication la. comme comme ni ñu koy faral di waxee ci Modou buy buy taw kenn du fobeere xëy na moment boobu moo dul woon moment boo xam ne moom waroon na ci wax jàpp na loolu. bien sûr mhm. kenn warul wax. parce que tey waa ji dafa dafa tudd làmb te Modou mooy roi des arènes. il faut que tamit loolu ñu bàyyi ci xel tey bu fekkonte ne ci làmb ji kenn mm. moo war a wax mm. bu dul président CNG Modou lay doon ci yoon mm-hmm. am na droit wax ci ok loolu moom kenn waxatu ko mm-hmm. parce que peut-être ministre bi même bu fekkente ne waxul làmb kese wax na ñëpp facteur yu bëri donc facteur u làmb Modou am na pour wax ci mm-hmm. xam nga te loolu dañ ko ko war a nangul loolu moom engagement am la moom mais ministre bi tamit li mu wax am na droit wax ko d'accord parce que peut ñoom dañu bëgg liggéey wala dañu bëgg li lii wala dañu bëgg li lii. ñu hmm. leen tuddee xam nga amul mais loolu dara nekku ci. d'accord <laughs> ma tuddee bu ma la tuddee tey bu demee ba def loo xamante ne esal ma lax liggéey na ba kii xam nga tey nit ñi bu leen neexee ñu ne tey waa koñam ñu ne dañ koy sargal mhm. loolu moom xam nga loolu fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi mais peut-être dañuy soog a ñëw moo tax xam naa mu ne xam nga man gisee ko dara lu garaaw quoi d'accord est bi mu jëloon moo gën a affaire yi moo tax ñu bari jàpp ni rek opposant buy wax la au lieu de euh, roi des arènes waaw xam nga Sénégal nag ku nekk ak ni ngay gisee àdduna moo demee noonu mhm. xam nga tey Modou am na droit far position fële parce que nit moom mën nga ko sàkkal lu nekk mhm. ba mu des ku muy àndal ak ku muy waxal si yaa ngi wala fu muy far Modou moom moo far foofu tey Modou mën na far fii sax soxnaam bañ a far fii loolu dara wala mu far fii keneen far fii kii far fii. Hmm. mais far ci nit la nekk. ki koy contre moom dafa far faralul ki ciy faral mais ku nekk am nga droit far fu la neex mais gérer fi nga far. ñu joxante cër tuuti quoi c'est très important. Hmm. parce que tey da ngay gis nit toog ci net bi di la wax loo xamante ne. Hmm. yow leer na ne boo jàkkaarloo doo ko def man yi passé am na ku ci kii bi waa dafa wax man personnellement mënoon naa ko bañ a woo mais dama dugg ba xool ba gis contact am ma fexe ba contacter ko wallaahi mais da ngay xam ne kii en fait amul sens quoi ko yooyu amul sens. Mhm. xam mhm. biir tuuti quoi. c'est très important alors boobu amul après lu ngeen si rëccu parce que ñu bari dañu gis ni vraiment Modou tey moo ëpp daraja sax homme politique yi nga xam moom lay topp seen ginnaaw. bu moom loolu Modou la moom la engage ah d'accord. isan ma la. Mhm. moom moom moo jëlay engagement moom moo génn moo wax moo def lii ak lii isan ma la loolu moom la. engagé te am na ci droit quand même en tant la. lu ma wax. wala su wala a wala mhm. fu ma nekk. yow la engagé man la engagé lu ma wax loolu man maa jël sama responsabilité. tout parce que bu ñu ma saagaa sama yaay lañ saaga. Mhm. Modou bu ñu ko saagaa yaayam lañ saaga. xam nga. donc côté boobu moom ku nekk ak sa loolu yow la concerné ko d'accord très bien maa ngi koy tooñ sànq tey bu ñu demee ba jàpp ni c'est un peu c'est pas du tout cohérent image yu Modou ni muy doxee léegi ak làmb maa ko koy laaj sànq euh, Papis loolu. nan ngeen koy dundee yéen est-ce que da ngeen di am confiance cent pour cent d'autant plus que ñu bari dañ gis nii lu mënul ñàkk ci làmb wala li ci ëpp solo mooy mystique bi. non non non Modou nañ ko xoolee benn benn benn boxeur buy dem boxe ji rek quoi. tey da ngay dem foofu summeeku rek ñëw taxaw nga fayet mm-hmm. xam nga mm-hmm. làmb nañ ko jaax nañu xam ne sport la diine diine la mais diine sax yaw xam nga ne dañ ci dañoo dañoo sib sax ku dul dem sport absolument mm-hmm. sunu borom sax dafa wax ñuy sport yonent bi yonent bi yonent bi wax si xadis al muminu al qawiyu wa ahabu ila allah min al muminu daif <laughs> ku def sport gu dëgër gu jàmbaare daal yàlla nee na moo ma gënal ci ci jullit bu mel ni man <laughs> Fabis <laughs> donc c' est très bien yàlla considéré na vraiment ku ku kuy def sport waay ma kon na mhm. donc nag kon nañu jàpp ne sport lay def mhm. xam nga su ci pare ñu wax ci leneen quoi xam nga loolu nañ ko jàppee sport mais am na loo xamante ne yëpp boppam la quoi d'accord xam nga parce que ñun ñëpp ñii di wax ak yow bu lépp weesoo ay jullit lañ mm-hmm. waaw ñi ngi ñi ngi def suñu kéem lay kàttan li ñu mën xam nga bien vrai que <laughs> des fois mooy loolu mais mënul ñàkk justement donc nañ ko nangul lool rek. très bien gisuma ci benn inconvénient. d' accord Papis Xaragne Lo moom la seen bés di am ak jotaay question bi ñu bëree bëri ci amateur yi bëgg a laaj mooy diggante euh, combat wu ak Modou Lo combat bi relation familiale am na seen diggante dina am wala du am euh, combat bi guerre amoon na alburax bëggoon nañu jël Modou Lo des trucs comme ça lan ngay leeral ci loolu Modou alburax bëggoon nañ ko sottiwul jàmbaar ñëw jël ko far force xeex la seen diggante. lan ngay leeral ci loolu Papis dëgg yàlla billaahi nag xama tey si dafa naqaree wax <laughs> loolu aw ma dara lu ma ci leeral parce que xam nga moo tax hmm. parce que man amaguma ci dara lu ma leer man ah li ngeen ci dégg nii li ngeen ci dégg dégg ne combat bi lii na ah combat bi taxaw na combat bi lii wallaay loolu laa ci am ah bon xamagoo ndax Siteu euh, Modou taxaw na wala taxawagul ni ngeen ko déggee laa la wax ni ngeen ko déggee man noonu laa ko déggee noonu laa ci yem ah bon wax dëgg yàlla kon mën guñ jàpp ni taxaw na à cent pour cent ah, Papis loolu de waxuma mais nan la mën a nekkee combat bi taxaw te yëgoo ko. te déggoo li ma la xanaa waxuma yooyu dama li ngeen ko déggee nii combat bi taxaw na. ok ah Modou taxaw na ba Papa kii combat. Ah, Siteu Siteu Modou Lo taxaw na. Mhm. waaye nii dégg bi ngeen ci am nii moom laa ci dégg. d'accord moom laa ci am. d'accord waaye kese. alors bu fekkee ni yàlla dogal na loolu am ndax jàpp ne relation familiale yi mën dégradé ah, wala mën a xam ñoom ñoo ko war a mën a waaw lu ci mën a xew. Mhm. ni muy doxee selon ci ñoom ni ñuy comporté woo ñoom at ñoom ñoom leader yi quoi. Hmm. selon ñoom ni ñuy comporté woo noonu la làmb ji déroulé. Hmm. bu ñu ñëwee teg ko ci yoon wax ni war ne nit ñi làmb ji en fait làmb ji sport kese la. Hmm. bu ñu ñëwee ko ci yoon war ne nit ñi ah lii sport kese la. dañuy sport après mu jeex. ñu meeg ma ni ku nekk dem. bu ñu ko defee mën na continuer mais bu ñu ko deful nag peut-être li muy yàq après mën naa bëri te du ko jar quoi. d'accord ah. Papis yaakaar naa ni. Euh, yow ak mën naa ne yow ak Modou Lo kenn naatable ko waaye dama yow ak Siteu dafa mel ni da am ay relation yu euh, am solo parce que dañuy déggante da ngeen di gisante su ma juumul kon euh, combat bu taxawee ba su ma juumul taxaw na sax yaakaar naa dañ ne nga ni euh, liñ ci am yow loolu nga ci am muy dégg-dégg bi mais combat bi taxaw na par jàmbaar production loolu parce que loolu lañ annoncé loolu lañ signé euh, sa digganteeg Siteu lan lan ngeen lan ngeen ci mën a wax ak lan ngeen seeq yéen ñaar. waaw ah, sama digganteeg Siteu relation comme relation frère ak frère ah. mm-hmm. xam nga tey man moom du ma ne tey da ngaa baax suba man da ngaa bon. du man da ngaa weex suba man da ngaa ñuul man Siteu suma nit la loolu dara du ko dindi dara du ko dindi dara yàlla xam ne loolu tey moom Modou mooy li ma la wax rek sport la man tey bu làmb ji taxawoon sax ma dem ji ma dem ci Siteu wala xanaa dinañ tiit ci man dèjà i yi dégg parce que tey bu lépp weesoo xama Modou la ma ñëpp xamee ku ma xam-xama ginnaaw yàlla yonent bi xama ci moom ma xamee mais dafa loo xamante ne yow tey mën naa tax nga xamanteeg nit ngeen seq loo xamante ne xam nga sama xarit la dara du ko dindi. Mhm. loolu maanaam ku ma ciy mere nag ma ci mere ku ma ciy bàyyi nag ma ci bàyyi mais suma xarit la mais làmb ji nag mu ngi móodu mu la. Mhm. bu ñuy bëre bu ñu waree bëre ñu tëju pour ñu bëre dañuy bëre après mu jeex. waaw mais man man moom moom. sama Siteu sama xarit la. ok ak ay xaritam ak maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp. ak mhm. ay nitam ak seen famille ak xam ñëpp maa ngi leen di. cher te du yàq dara ci ànd beeg. man man man personnellement. waaw non man déggoo li ma la man signature bi laa la wala par exemple jour làmb Siteu Modou su ma Siteu fekkoon ma taxaw mu dóor ma. Mhm. du ma ko faale wala déggoo li ma la man saa Modou bëri na fekk ay nit yoo xamante ne dama am foofu foofu dama am ay nit ak ñooñu ay relation yoo xamante ne. Mhm. du làmb moo koy yàq. Mhm. yàlla xam na loolu. parce que dama ñàkk xam nga nekkuma ci ñàkk fayda yooyu quoi en fait man nit <laughs> yabuma bu may ñëw di ma wax yenn wax yi déjà essayant yi dégg relation nag nga xamante ak nit wala nga séq ak nit dara ça veut pas dire tey <laughs> day yàq ci loolu làmb ji loolu da ci yàq dara naaw. du ci yàq hmm. dara. Hmm. man bokk as man du yàqoo sama côté bokk. ok non non non. am na solo euh, Modou li ko dese ci làmb mën naa ni bëriwul nga ànd ak moom. Euh, mën naa ni du diir ak carrière waaye itam ànd nga nga ak moom tey euh, carrière am ci lu bëree bare bari tey Modou bu demee ba génn ci làmb ji ndax Papis tey. am na amaan na beneen mbër boo xam ne fii ci parcelle la ne mu muy ànd ak moom comme ni mu daan ànd ak Modou Lo di ko jàppale ci wàllu mystique ak yooyu. déggoo li ma la wax xanaa mm-hmm. man man Modou gis nga nii nii comme nii nii gis nga ni nga ko fekkee nii mën nañ toog lu yàgg duñu gisante xanaa ñu daje mu ñëw fii wala dara man moom làmb moom saay boo ma gisee làmb dëgg ci suuf wala nga gis ma fenn xamal ne tey lii ku ko lu ko jar dëgg li may dem làmb sax bariwul léegi isal ma lax mais am naa ñoo xamante ne nag isal ma lax saay bu ñu xewlee moom saay man ku ma lebal lii dama lay fay lii ku ma lebal lii dama lay fay lii d'accord Franc man ak moom bon lu sax loo xamante ne ay vite fait la ñoo bokk benn koñ. Hmm. juddoondoo benn koñ xam nga benn koñ une deset xam nga. Hmm. Uh-huh. ba nii may wax yow man foofu laa juddoo fa laa yeroo fa laa màggee. d'accord sama famille ñëpp ngi foofu. am na solo ñoo defandoo lépp. donc hmm. c'est très normal quoi ma ma ma wàcc démb takk ci répp quoi parce que combat franc man su ma xëyee jour combat franc su ma yéexee ñëw sax suñu waa kër ba ci sa maam moo may woo fan nga nekk gisaguñ la. donc xam ne loolu nekkul loo xamante ne. absolument voilà. ok am na solo ba ci Petit Lo yaakaar naa gis naa la ci ay combat yu bari nga koy taxawu. ëmm seen Sa Thiès lan ngeen ci mën a wax ndax duñu jëm ci journée bu am solo. muy tombeeg le 5 mais incha allah. ëmm seen Sa sëñ Fallou. waaw alburax jëm na ci combat bu rëy maa ngi jégalu sëñ Fallou. maa ngi koy nuyu ah borom <laughs> global tour. borom bi yi ah. ndeysaan. <laughs> pour ñu bëgg a voyager xam nga. waaye xam nga ku <laughs> nga dem ci moom mu jox la billet yi quoi moom mooy borom billet yi. am na solo. non boo ñëwee da lay jox wallaahi. incha allah Albourakh ah. production dafa tëgg kombaa bu rëy diggante euh, Sa Thiès seen Sène. daataa hmm. ma ñëw ci combat bu dafa am combat bu ko bootal muy Pokola Balde ak Liss Ndiago ñoom ñaar seen combat noo ko gisee Papis. waaw combat la boo xamante ne combat ay combat jàmbaar dëgg la. waaw waaw ah, combat jàmbaar dëgg la. lu waral nga def ko combat jàmbaar. waaw ah, parce que ay jàmbaar lañ ñoom ñaar. loo leen bañ bañ bañ bañ. xam nga ne ay jàmbaar lañ. Hmm. nekk ay jàmbaar moo tax xoolal yàlla sax moo leen dimbali ba benn yoon sax lañ jot a jàkkaarloo te gis nga li fa xew. li fa xew waaw. te ma lax mu liñ naan ñaari kuy mënuñu bokk mbalka dëgg la moo nekk noonu ay jàmbaar lañ. Hmm. ku ci daan mënoo ku ci daanu démérité woo mais naa la xamal ñaar. waaw dañuy gis neex. combat bu rëy. am xeex ak bëre. waaw yaa ngi ko ci séntu. waaw day am dóor mu daanu itam doo mënoo ko ci séntu. mën na cee nekk mais yaakaaruma ko. dóor mu daanu. ñaari booy seen seen mbooloo seen coow. waa lan lay fàttali est du la est-ce que du la jox combat Modou Lo Balla Gaye bu njëkk ba. non mënul boobu rek. Euh. Mhm. Sa Thiès Eumeu Sène. ñu jeexalee moom xam nga li may wax rek. Sa moom su bëggee am dara si Eumeu Sène. jox cër quoi. pas mu jox ko cër bu ëpp nag. mais na ko respecté xool li muy def mu wóor. Mhm. mu def mais bés bu ñëwee rek ne da ko fiy jëlee. Mhm. moom mën na fee jóge parce que Eumeu Sène nekkul mag boo xamante ne magu kenn la mag bu yàqu la wala mag boo xamante ne xam nga dangay ngay ñëw daxanteeg moom ba daan ko. Mhm. mais boo ñëwee ba ko taf tafee rek da ngay koy fekk si li ko gënal quoi. Mhm. su boobaa mën bañ a am la neex. waaye du mbër bu ñuy taf tafee. Mhm. ok cër nuñ koy joxee mbër. non cër dafa am fu mu yem rek maanaam cër maanaam. boo déggee ñu ne la cër di nga jox mbër cër ba arbitre sifflé nga dagg cër bi. mais boo daggee cër bi tamit am na cër boo fay bàyyi maanaam cër bi nga fay bàyyi mooy du damay ñëw rek ne la yow dama la fi dama fi dama la fi jëlee léegi léegi léegi ci nu ma neex mm-hmm. waaw mm-hmm. Mm-hmm. Mhm. dinaa naxante yow ba daan la. ba daan la waaw ah. ok. <laughs> jërëjëf Papis Xarañ Lo moom la seen bés doon am ak jotaay may fàttali ñu dañ am occasion tey improviser benn jotaay li si juble woon mooy jaale suñu papa ji nga xam ne moo fi jugee mooy euh, suñu papa Gaston Mbengue Papis xanaa rek di la waat di la jaale waat euh, surtout rédaction seen bés di jaale Makan Mbengue ak waa équipe bu Gaston production bi. di la jaajëfal aussi vraiment ci disponibilité bi Papis. merci beaucoup merci amiin yaa rabbi merci Papis merci beaucoup.